tey sa bilan foofu ca ca Maabo parce que sànq yaa ma wax ni que ku ku social nga ku mën a jàppale doomu aadama nga mais souvent ci ci li nga xam ne moo di campagne ñu bëri dañ naan Aliou ay peeru ma ay ay ay mayo ak ventilo rek lay wax xanaa moom loo kese la def euh, foofu ca ca ca Maabo donc ñu ma bëggoon nga si ay leeral wax sa ci li nga xam ne def nga ko foofu ca Maabo depuis bi nga nekkee maire ba léegi. nga sama bilan. ñaari bis la lañu wateegu waaw te xam naa ne li ma def maabo bi maabo amee maire ba li loolu ñiti àll bi sax dañ koy wax maabo nag dafa xaw a rëy quarante six village am na ñu gisagul seen bopp waaye tey miiri collectif def naa ci onze yoo ay armel ay mbaar ñu koy wax ay angaar def naa ci deux du man rek nag ndax man la ak conseil municipal bi ma àndat équipe amul parti politique beneen waaye nag may indi sama xelaat dégg nga amul lu ma fekk maabo te yokku ma ko waaw tey hôpital man bi may ñëw liñ laan daan jox ci garab bi ma ñëwee dama ko duubul dégg nga jeunesse bi ci football histoire bi ma ñëwee liñ leen daan jox dama ko duubul étudiants yi bi ma ñëwee liñ leen daan jox dama ko duubul gis nga élèves yi sax su ñuy am ay essais yooyu noonu seen affaire yi ñam ya caay nekk sax man maa koy parce participer man moo tax su may dégg kuy wax naan Aliou liggéeyut wala dafay def ay marché nangam ree daf may jàpp gis nga ñun diine lañ gën a gëm soxla place bi Aliou ne bu la dara bëgg ko man ji nga bi ma bëggee place bi waa ji nekk nekk ma woon ci réseaux sociaux yi di kacci kacci nii rek xam nga nu ma defoon dama dugg ci àll bi jege askan wi di waxtaan ak ñoom politique askan wa ngay jege di di leen wax say projet mu dugg seen bopp comme ni Ousmane Sonko doon def di wër ci àll bi di waxtaan ak nit ñi. Ousmane Sonko mooy sa royukaay. waaw sama royukaay ci politique waaye boo ko waxee. ku dëkk Pastef saaga la mere la naan dafa bëgg Ousmane Sonko rasuwaale la man gis nga. xam nga Pastef dañ laa bëgg bëri na ci ñu ma bëgg waaye ña nekk maabo bëgguñu man dañoo foog ne su ma duggee Pastef rek xam nga ñi ni ñoom intérêt personnel la ñuy <laughs> liggéey kon yàqu naa dootuma doon meeru maabo kon gars yi duñ doonati meer su Aliou ñëwee biir Pastef waaw Pastef na moom nu fi Aliou mën a ñëwee man ji nga ca koor ga laa doon dugg Pastef. léegi la moo tax duggoo ba dañoo wax ne man damay ñëw maabo xam nga mënumaa nekk maabo nekk maire ba pare yàlla def ma kilifa man nangu ko lool ba pare ñi ne ki fi nekk responsable ci Pastef ci maabo damay ñëw topp ci gannaawam tey su programme amee man may maire xanaa dama koy jox sama oto bi mu set délégation am man ma topp ci beneen oto nekk ci gannaawam su demee ca xew la kon loolu sax weddi yàlla la ci man yàlla jox ma cër ma ne ko li mu ma jox bëgguma ko dama koy jiitalee keneen maa ngi leen nag man maay premier magistrat de la ville te temps yi nag su président de la république doon ñëw du laajte coordonnateur parti premier ministre su doon ñëw ci dëkk bi du laajte coordonnateur bi xam nga ku laaj kan mooy Aliou dégg nga te sax sans sans loolu coordonnateur ba man baayam laa magam laa ba pare ip yi nekk baayam nekk magam siq ak woy juróom tiraanga boo xam ne nii amul lu ma koy fay woy juróom tout le temps mu ne maire yi fi nekkoon maire bi Aliou liggéeyul te man papam nekkoon na président communauté rurale papaam nekk sama mbokk lool nag papam ki jur papam ak man ki ma jur seen yaayee bokk ndey ak baay waaw politique garaaw rek waaw ba dama koy dégg muy wax ci man wax yoo xam ne ni c'est grave wala muy wax ay xaalisu marché yi Aliou luubal na ko lekk na ko bi mu nekkee maire ak léegi mos sa joxe situation euh, euh, ASC yi man yooyu du ma ci tontu ASC yaa ngi fi ASC yaa ngi fi parce que xam nañ ñoom ñaari bits yi ñu wote xam nañ ñoom ñu ngi doon jot nañ wala jotuñ ah suñ jotut duñ ñëw mairie waaye affaire yi du yooyu de fii nga toog laa soxla fii nga toog laa soxla. yow bi foofu ca bëri nañ teg ci ci ah, waaw xam nga man ci dëkk village yi laa dëkk dëkk àll am na ci ñoo xam ne biir Maabo dañuy wax delloo ci suñu moomeel Maabo delloo ci suñu moomeel mel ni man dama dëkkul Maabo am na ci ñoo xam ne man maaleen leen biir Maabo lañ dëkk Maabo dëkk bu mag la ñëpp ne. Bonjour tout le monde, Dieynaba Coulibaly madame Kandji commerciale chez Meco Humo comme nuñ ko faye di defee tous les visites tey dañu ñëw fii ci suñu site nekk fii Pout pour présenter leen suñu projet terrain yaa ngi nekkee entre kilomètres cinquante ak Pout ce sont des terrains de cent quatre-vingts mètres carrés qui coûte quatre millions cinq cent waaw quatre millions cinq cent dong lay jar pou si bëgg da ngay joxe apport réservation cinq cent mille joxe sa FOD maanaam ouverture frais de dossier à deux cent mille 4 millions yi des Merco Imo may la nga fay ko ci diiru 3 ans maanaam 36 mois papier yi ce sont des notifications de bail accessibilité bi moom macha allah parce que jege na gare de terre bi soo seetee suñu kanam aéroport baa ngi ne aussi autoroute à péage bi c'est juste à côté donc chers clients de Merco Imo ñu ngi leen di invité ngeen ñëw def ay visites sur site c'est du o au samedi à partir de 9h da ñuy contacter su numéro yi nekk fii ci affiche bi. su ngeen ñu jotee ñu expliquer leen comment faire ngeen ñëw def seen visite su ngeen bëggee finaliser aussi bureau yaa ngi nekkee Ouest Foire. Kiko Humo du leen jaay terrain rek yem si déedéet viabilisation c'est en charge su ngeen déggee viabilisation maanaam dañuy dugal ndox dugal courant. lieu baa ngi nii yaatu macha allah dina am aire lépp li nga xamante ne nit dina ko soxla pour jumtukaayam am na si terrain yi nekk fii si Pout donc. ñu ngi leen di invité ngeen ñëw jënd ci terrain yi. Merco Humo votre partenaire foncier de référence bëgg na bépp citoyen bu nekk ci Sénégal ou de la diaspora bénéficier wu ci opportunité yii mu leen offrir kon lu ngeen di xaar ndaw ci leen gaaw.